su ko defee nag kon bu ñëwee ci xar nag mu mel ni buñ ko waxee nag donte yëpp a baax waaye nag am na yoo xam ne warees na ko bàyyi xel te koy moytandiku ndax boo xoolee mag ña rek suñu borom da leen mayeen xekk ma du jur gépp lañ daan rendi am na yu fi daan bàyyi am na yu daan moytu am na yu ñu gën a tàmm di ko rendi li may faral di wax rek jur goo gis rek. dafa am ñaar lu ko tax a jóg waaye nag ki nga xamante ni gëstu ko moom daf lay wax ne jur moom gépp yam loolu nag erreur mënu ko weesu ndax ñi xam jur dëgg am na jur goo xam ne buñ ko fekkee ca daral dañuy xam ne jur wii jur gii du dee mukk ci lu dul dëj loolu lañ koy xam ndax dafa am màndarga yuy nekk ci jur ci mbégte rek lay de am màndarga muy nekk ci jur ci wu naqar rek lay de yooyu nag boo ko dee wax koo xam ni gësu ko da koy jàppee ay jaaxaan kon nag ñu ñëw feeñal tuuti xar nag ba tey bu làmminam ñuulee bu làmmin wi ñuulee baaxul ci kuy yaxantu dee nag danga nga koy jël pour rendi moom amul benn muskila waaye bu dee da ko bëgg a yor pour yaxantu loolu baaxul ci kii yaxantu lu fa fekk rek mën na ko faa jëlee bu làmmi ñuulee lu mu yor du yokk te lu mu yor dee wàññi ko xar bu tuñum ñuulee kon gis nga ko làmmin laa wax fee fii tuñ laa fi wax waaw bu tuñum ñuulee bu ko rendi ci am tudd tudd bu ko ren ci sa kër waaye rawatina nag nga di ko ren ci am tudd moom ñi xam jur dëgg duñ ko nangu kon ñu bàyyi xel programme boobu bu baax a baax te it borom alal yi tamit dañ koy ragal di ko rax ci seen gétt ñi nga xam ne ñooy ay sàmm ñaare saa buñ ko amee dañ koy génne ci gétt ga wala bu juddoo ñu teel koo xam dañ koy tegtal tal na su koy tegtalee mooy dañuy jël cin loo xamante ni togg na jaana ci togg ba tàyyi ñu dëpp ko ca ab di dippi ko su ko defee nag gaaf ga daal dinay toj ndax du lépp lu bon rek dañ ko war a sànni kon mag ñi dañ daan gis gaaf tegtal ko mi ngi mel ne rek aw fas wu gaaf te amoo moom nga tal ko loolu moo ñëw ba ci jur gi nga xamante ne bii rek dangay gis ne dafa gaaf te judd leen nga ko nga tojtal ko kon loolu bokk na ci li nga xam ne da koy tojtal ba tey xar boo xoolee bopp bi su melee su amee lu melekaanoo comme ay rongañ comme tey jii ci misaal bu nit doon jooy rongañ fa muy jaar da gis boppu xar mu melakaanoo noonu maanaam bët ya melakaanoo noonu nga xam ne day mel ne day am lu fa sax mu am aw yoon ba nga xàmmee yoon yooyu moom tamit di su ko yar ci kër lu ko waral day waral kër gi bari ay rongañ te tamit gënut ci borom kër di ko rendi loolu tam ñu bàyyi xel wax jooju boo xoolee xar bopp ba nga gis yoonu rongañ waa feeñ mu mel ni dafa dafa am am yoon wu leer nañ ci say gët ba nga ba ba gis ko ndax ñaari bu amee da nga ko gis boo xoolee boo ci bàyyi xel lu mel noonu kii yar na moytu yar loolu waaye kii rendi tamit na daw rend boobu ndax googu gaaf tamit neexutu tottal kër gu mu nekk itam ay rongañ dana fa bari kon loolu bokk na ci li nga xamante ni mooy gaafu xar. su ko defee amaat na beneen gaaf boo xamante ni bii ah, mag ñi daan ko bàyyi daan ko bàyyi xel baa boog bu amee tëm sës ba ñoom du ñoom ñoo koy rendi mooy xar moo xam ni sikkim bi daa am karaw karaw goo xam ni mën nga cee jàpp mu mel ni karawu bëy comme sikkimu bëy rek laa bëgg a wax su melekaanoo noonu nag yow mi nga xamante bi yow yaa nekk ci kër gi te wi borom kër gi nga bañ koo rendi moo gën kon bu ko keneen rendee baax na amul benn jafe-jafe gaaf ga du am benn jafe-jafe ca moom waaye yow daal li muy bañ mooy yow mi jiite sa kër daal ñëw andi ko ci kër gi rend ko melokaan boobu nag boo xoolee bariwul ci xar yi waaw bariwul yi am na si ñoo xam ne sax buñ ko amee ndax xam nañ ko dañ koy wat ndax léegi ñaari ñiy jaay dañuy xam yu baree bare bare bare dañ koy xuuf ba daanaka rek yow boo amatab seetlu doo ko gis même boo amee seetlu sax te amoo benn xam-xam bi sax mën naa jafe pour nga xam ko waaye yooyu mag ñi dañ ko daan moytandiku ko waaw ndax moom ak des ndo ak des ndond la waaw ak des la hmm. waaw xar mi nga xamante ni bi tamit booy xool tànk ba buy dox tànk ba day dugg day dugg ci biir mel lu jëm ca waay yàlla ya dana am ci tànk yi dana am ci xar yi waaw da koy gis ci xar yi nga xam ne bu doxee boo taxawee ci ginnaaw dañuy gis ne concuy xar moom ginnaaw ma day day day day day day ak meneen conc ma loolee ci doxiin xar yi la waaye boo amut ab seetlu rek doo ko gis loolee tamit mën naa tëj lu baree bari bari ci buntu ci ay yëf a mën naa tëj lu baree bari ci buntu ci ay yëf ay yëf yu wuute sax kon boobu moom bokk na ci yi nga xamante bi dafa gaaf gaaf yu leer nañ te mag ñi bàyyi woon ko xel te ragaloon ko kon gis nga ko sew sew yi bari na lool ñëw naa ñëw ba ci da gis sax xar moo xamante bi genn bi dafa gàtt gàtt boo xamante bi la des la dagg moo ko ëpp waaye da gis ne ci ñiy jaay xar dañuy ut ab geen kole ko ut karaw saxal ko ca maanaam def ci kol ñam ñamal ko moo tax yow miy jënd del bàyyi sew sew yooyu yow miy jënd del bàyyi sew sew yooyu moo tax jàpp geen ba mel ne lu koy rocc wàcce ko fu nekk sa loxo laal fa dina tax nga nga daal koy euh, xam ndax genn bi mën na wala matut waaw su ko defee tamit boo xoolee dënnu xar danay faral di am ay ronron waaw lu lu melakaanu comme ab dërëm comme loolu yi fas di am dañ koy gis xar di ko am su fekkee nag say dënn ba nag dafa am ñett yu fa tegaloo yooyu tamit mag ñi dañ ko daan ragal ñett yu fa tegaloo ca dënd ba dënn bu xar moom yomb naa xam. waaw bu dee benn baax na bu mu ëppee ñett baax na waaye bu ma tee ñett yam se rek loolee moom dañ ko daan ragal léegi boo ñëwee ba ci fi nga xamante bi dafa nekk ci diggante waaye yàlla wi ba tey bu fa defee benn boobee tamit maa ngi leen ko daan ragal ci rendi ko ci kër ba tey gis nga ko yooyu yëpp ay xeeti gaaf la yoo xamante bi jamono nag laayatul loolu waaye comme xam-xam na dañ koy waxtaane rek. ndax xam moom lu bëree bëri bëri moom nit ñi bàyyeetuñ ko xel waaye xam daa baax kon su ko defee loolu bokk na ci yi nga xamante bi ñooy yiñ daan moytandiku te amoon tout danger yi ci nekkan ba tey boo ñëwee ci xar maanaam li muy sukkee bu dee ñoom ñaar ñëpp dafa ñuul boobu itam daa gaaf te xale waru koo rendi waaw bu dee fa muy sukkee ñaari tànk yi fa muy sukkee bu fekkee ne dafa ñuul kukk la ca lépp mel benn melokaan loole ka ca gën mooy mag rend ko ka ca gën mooy ko am njaboot fa muy sukkee nag buñ ko waxee mooy tànki kanam yi lay lemewu bu fekkee ne ñoom ñaar ñëpp dafa ànd ñuul nga xool xar mi yëpp nekkaat beneen benn karaw amaat leneen lu ko amut leneen lu ko rax loolee dañuy bañ ku amut njaboot di ko rendi kon loolu yaakaar naa ne ba tey leer na bi mooy xar bu fekkee ne da koy jënd mu saw baax na gaaf ga toj na bu fekkee ne da koy jënd mu kabine ma nga wax boppam yooyu tamit mag ñi nañ ko def ab ab takk waaw bu fekkee ne eh, lii ma tudd nag ci ne dafa nekk ci xar mi saa boo ko dee jënd bu sawee rek mooy sunu boroom tojal na la gaaf ga maanaam gaaf ga toj na bi ci tamit bu fekkee ne sawut dafa kabine ma ngi lay wax boppam ma ngi lay wax maanaam gaaf mi ngi ci moom loolu tam ab junj la ci yow mi jënd te lii nga jënd loo ci jënd mu nekk ca rek boo ko jëndee bu bu sawee gaab ga toj na bu fekkee ne sawut nag dafa kabine xamal ne kon gaab ga maa ngi ci moom loolu day day dëgëral ne gaab gi mi ngi ci moom te it ngi lay firndeel ne gaab gaa ngi ci moom kon loolu bokk na ci programme bi nga xam ne moom mu leen indi woon ci xar ñu yemandi foofu te daal di ñëw ci mbonaat